asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñuy topp ci internet bi rawatina seen chaîne bi muy Serigne Djily TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen baalu àq di feddale suñu kóllëre ak suñu cofeel ci yéen tey nag dañoo dikkaat ak ci gën a leeral gént teen moo xam sa kër nga ko génte moo ne ca wala ci biti ñaare nag bari na lu muy dikkal ki nga xam ne day faral di liggéey turu yàlla eh, moo xam ca tàmbali ba wala lu muy ñaan la bu dee ko xam day liggéey turu yàlla ñaare dana koy faral di ko feeñu muy gis teen bu bari ndox bu fekkee turu wuñ koy soog a jox la mën naa tekki turu wërsëg bu dee boo demee ba turu nga yàgg moom lool nag nga gént gis teen bu bënn loolu mën naa tekki it bu bënn wala ak wërsëg wuy dikk ci yow nga am ak seetlu tamit ne bu fekkee danga gént eh, teen boo xam ne amul ndox ci njëlbeenug tur yàlla xañ na muy tur woo xam ne am na gàllankoor wala sax ngay gas teen mu bañ a bënn loolu it dana tegtale tur woo xam ne xaj na am na gàllankoor wala mu am lu mànk ci biir wala daal am na loo ca war a def loo xamut wala ngay gas ba sonn mënta bënn yooyu yëpp ay gàllankoor la ci tur yàlla bu fekkee ca tur walañ la ko wane nga càmbaraat ko bu baax a baax bu fekkee ko xam ne day faral di ñaan nag comme wàllu aajo moo xam xalwa moo xam riyaada la waaye daal mi ngi ñaan aajo pour yàlla fajal ko wala mu am kum koy ñaanal ñaare bu fekkee dafa gént teen bu bënn di génnem ndox wala mu gënt di gas teen ba teen bu bënn yooyu yëpp xeeti ijaaba yuñ koy wan ci aajo jëmi ñaan muy aajo ju faju nga gis teen bu bënn di génnem ndox wala sax nga gas ko ba jot ndox mi loolu xeeti ijaaba yi ni noonu noonu it léegi léeg-léeg la ko wane noonu nga bàyyi ci saxel bu baax a baax ba tey bu fekkee ko xam ne day saxaar lu mel ne soxna wala lu mel ni boroom kër mu gént gis teen bu am ndox wala mu gis teen bu bënn di génnem ndox loolu dañ koy wan boroom wërsëg la moo xam ku góor ki la moo xam ku jigéen ki la bu ca duggee incha allah du ko du ko rëccu euh, ba tey bu fekkee koo xam ne day faral di xëccoo marché comme marché yi ñuy faral di ko xëccoo pour gagner ko wala sax muy xëccoo ak lu mën a doon rek ak lu mën a doon looy xëccoo moo xam marché la moo xam sax football la moo xam bëre la ak lu mën a doon daal wala nga déposé dara sax muy joŋante muy joŋante ak yu demee noonu nga gént ngeen wër ab teen maanaam mbooloo mi wër ko yow kese ñu yëkkati baag bi jox la ko pour nga wëgg teen bi loolu dañ lay xamal ne yaa yaa cay am ndam bu fekkoon na marché la yaa cay gañe bu fekkoon ne concours la dañ ci génne ndam bu fekkoon na bëre la bu fekkoon na football la ak lu mën a doon rek yooyu xeeti tegtal yi ñu lay wan la ci liggéey sàkku di ko jot ba tey am na gént yoo xam ne nit ñi daan koy faral di gént gént ñu tàbbal la ci teen bu lëndëm teen bu lëndëm nag bu fekkee danga gént ñu tàbbal la ca loolu ay pexe noonu yuy sotti la ay pexe noonu yoo xam ne dañ lay jugal dugal ci ay jafe-jafe ñu waxee ay jafe-jafe nag yaatu na kaso mi ngi ci naqar ngi ci police ngi ci gendarme ngi ci lu baree bari mi ngi ci waaye nga bàyyi sa xel ne bu fekkee nag loolu bu fekkee teen bu lëndëm la wala teen bu raglu la ñu tàbbal la ca biir amaa bu fekkee teen bu am ndox la leer nga gént ñu dugal la ca biir loolu dañ lay dugal ci lu la amal njariñ loo xam ne xame xame xame woo ko woon noonu mooy nga gént ñu dugal la ci teen bu am ndox teen bu leer Ah, mooy gént loolu ñaare ñu dugal na ci loo xam ne foogoo woon ne lu baax la ba nga demee ba ci biir nga gis ko ba tey bu fekkee nit dafa gént eh, nekk ci teen bu lëndëm eh, bëgg caa génn mënu ca génn amut lu ko ci génne loolu dañ koy xamal jafe-jafe yum nekk te te te génn te jeexagut waaw bu fekkoon ne ku nekk kaso la génnagut ca kaso ba bu fekkee ku nekk ci jafe-jafe la ci gàllankoor ba tey ay gàllankooram des na ay lëndëm lëndëm mu xool bu fekkee na gis nga ku la ci génne kon ne ku nekk kaso la nga gént dugg ci dugg ci teen ba yàgg am ku la ci génn léegi tey nga génn ci kaso bi bu fekkoon ne ku ñu ne ci jafe-jafe gént dugg ci teen ñu génn ko ci loola ay jafe-jafe yuñ koy génne la ak jaaxle guy dañ la ba tey bu fekkee koo xam ne ku feebar la gént dugg ci teen rawatina muy teen bu lëndëm loolu dana tekki tëraay bu yàgg ci moom maanaam tawat ji dana yàgg ci moom lool waaw loolu nag ci bàyyi sa xel bu baax boobaa nag day laaj ko ak génneel ko ay sarax bu baax a baax na jàngal ko ay sóoratu yaasin moom it bokk na ci di dimbale nit ki bu tëddee feebar bokk na ci liy dimbali nit ki bu nekkee barsàq mooy ñeent fukki yees yi nii yaakaar naa joxe woon naa ko fi ay yoon yoon ba tey ku nekk barsàq bu gëntee nga géntal ko sax ndax moom mënta gént yow sa jëmmi bopp nga gént gis ko mu nekk ci teen bu lëndëm loolu mbugal la ci moom fitna jum nekk la ca barsàq moom waaba day laaj nga defal ko al fidaaw fidaaw nag yoon yi bari na fukki junni laa ilaha illallah fidaaw la ñaare koo ko defal ya suñ borom jéggal ko junni basmala fidaaw la bari na daal wala loo ko mën a jàngal ak yéene ko ak njëggal borom bi subhaanahu wa taala moo xam alxuraan la joo koy wàcceel moo xam ay ndogi salaatul ala nabi la yoo koy wàcceel moo xam ay ndog yooyu julli la ñaanal ko borom bi subhaanahu wa taala mu ko yooyu yëpp xeeti fidaaw la fidaaw daal mooy nga sàkkul ko ak njéggal ci ñaan ginnaaw bi nga génneel ko ay sarax sarax boobee nga yéene ci borom bi subhaanahu taala mu jéggal ko ndax sarax lu baree bare mën na ko te mel na ni loolu soo ko ko defalee ab diir yàlla mën na la ko wanaat mu nekk ci ci ci ci ci barab bu bu bu gën bam ne woon kon mbokk yi loolu lañ leen indiloon ci gént teen ci ay takk-takk yu ñu leen dolli laan yu am solo yu mat a jàpp kon ngeen wéy di abonné ci chaîne bi ak di ko tasaare ndax bokk na ci lu koy dundal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa